ok léegi nag tey jii yéen ngi amoon ndaje ak euh, ministre yi par rapport ak grève bi ngeen di amal ñu bëggoon xam ndax tey jii de mot d'ordre de grève bi leen koy lever wala déet. normalement ñu ngi gërëm euh, <clears throat> cadre unitaire bi gërëm président regroupement yëpp gërëm également la base. wax na nga dëgg jóge nañu xaw naa yàgg ministère mais fii ñu taxaw ni yàgg nañ fi te it ay témoins ngeen. loolu la muy tekki mooy yëfi yombut ndax bi ñu jógee ministère diggante wu ñoo ñoom dara dañ ne nañ bàyyi dem ba comme fii ci CNTS lañ joxoon ñëpp rendez-vous ñu ne bàyyi leen ñu dem CNTS te buñ fi ñëwee la yàgg na. biñ ñëwee CNTS gi yàgg na kon ça veut kon lii ñu bëgg a wax yombut mooy bàyyi grève bi déclaration mooy bàyyi nañ grève bi. waane dafa tekki ne ay jafe-jafe am nañ ko te noonu la mën a demee lii di jafe-jafe yi bi négocier point yi taxul ñu dem gero de bari na mën nañoo wax ne en dehors des villes ci wàllu tracasserie am na solution ville yi nag police gendarmerie joxe nañ ndigal ci un recensement des postes pour que ñu utal ko solution kon mën nañu wax ne wàllu tracasserie utal nañ ko solution président de la république signé na un décret par rapport à cette question le ministre tamit am nañ arrêté boo xam ne bii ministre conseil yi ñu doon fi wéqoog bëri démb bëri démb kenn ku nekk signé na ci mu des nag point yu bëri nag yoo xam ne doon nañ xaar mu sotti tey te sottiwut loolu moo ñu tardé loon tey jii ñii ne nañ ko lëbe ñii ne duñ ko lëbe ndax ci wàllu euh, pièce acier bi liñ ci war a wax yëpp leeragut ci wàllu document administratif oto yi liñ ci war a wax wax nañ ko mais tontu bi leeragut ci wàllu euh, transport illégal bi def nañ leen ay proposition ñoom ñu nangu ko ci ne ñun xam nañu fii oto yi nga xam ne amuñu droit def transport di ko def xam nañ fi nekk te niñ ko xamee ne que noon la ko ndaw buur yi xamee ànd nañ ci ñoom pour ñu tas foofu yëpp fépp foo xam ne fi oto wurul def transport ma nga fay làqatu def transport ànd nañ ne commission bi mooy ànd ak force de ñu tas ko ñu tas yooyu. lii indi nag jaax-jaax yi nit ñi mooy bañ fay jógee établir nañu le procès verbal de la réunion. mais finition bi mënuñu ko woon xaar que dafa amoon pression fii pour que ñu ñëw moo tax indiwuñu procès verbal bi te procès verbal dañ ko war a signé wax nañ mbooloo mi ne la procès verbal bàyyi nañ ko fa ndax traitement bi pare wuloon kon loolu rek moo doon indi problème bi kon bàyyi nañ grève bi waaye nag nañ xam ne njaw des na xamin lii nga xam ne moom lañ teg ci point yëpp. bëgg nañ o plus tard au plus tard un mois na ko gouvernement bi rek lépp boo ko régaluwul fu weer wee dee dañuy dal delluwaat gero mooy tiire nag attention population bi ñu wax ne un mois yii buñ ko réglé wut ci point yi soxla yëpp boo léegi bu ñuy gerew bu kenn wax dara nañ ñëpp dugal seen loxo wasalaam ma ne. ok dafa dafa am ñoo xam ne ñii. ci combat bi lañ nekkoon. saa seen numéro téléphone yi. dama ne yàquñu alalu kenn. ñi ñu fi téye ñëpp ci wàllu sensibilisation dong lañ nekkoon ab liggéeykat nag bu demee gerew am na droit sensibiliser moroomam yoon nag bari na ñu ci téye mais avant ñu génn ci saal bi wax nañ gouvernement bi. pour que ñoo ñëpp ñu bàyyileen leen. waaw gouvernement bi tamit joxe na accord am bi joxe na accord am duñu ay sàcc duñu ay bandi mouvement de masse la te kat ku nekk xam ne mouvement de masse kon li wétoor mooy dañ leen bàyyi lañ leen wax wax nañ ne leen bàyyi ndax bokk ci condition yi ñu pour ñu lever mot d'ordre bi te gouvernement bi population bi soxla nañu mu lever mot d'ordre bi kon moom lever mot boobu daf cee boole comme condition boo xam ne bi dañuy bàyyi ñi téewoon ñëpp te gouvernement bi nee na waaw naka population ndax xam ngeen ñaata personne lañ non bari na recensement boobu la ñu la ñu sant te xam naa ni ñu ko xamee noonu la ko gouvernement bi muy muy police xam nañ ko mais bu ñu ko santee tamit dinañ ko def c'est pas la première fois aussi ñu xam ne du syndicaliste du politicien ku nekk ci mouvement il faut ñu arrêter ay nit ku bañ ko la arrêté doo def benn mouvement te bu action amee après les actions dañuy libéré ñëpp accord nag ci biir accord yi ñu levé moo d'ordre bi mais accord na ci biir accord tamit ñu bàyyi ñëpp ku ñu jàppoon kon juboo am na ci ñaar yooyu. voilà